li ñu dajale tey dañu ñëw pour sargal suñuy mag suñuy kilifa yi nga xamante ne yëngu nañu ci wàllu sport yëngu ci wàllu aada muy culture euh, li tax ñu def ko ndax dañu jàpp ne xale yi war nañu xam ne mag ñi ñuy romb ci grand place yi ñu toog ndax seen i cër mayatu la ñuy def yenn yi mag ñooñu am nañu jaar-jaar tey jii suñu commune Diass bi am na ay champion sport yu fi nekkoon tey jii bu ma jëlee ci wàllu làmb mbéy gay cosaanam xolpa la Gris Bordeaux cosaanam ci ki la waaye du ñooñu rek

wala bu police nga dégg ci ay sonorités yoo xamante ne sonorité sans fin yooyu il est important que aussi ñu xam ko ba tax ñu gën cultiver les liens tey ji daal loolu mooy mbébétu bés bi mais également occasion la pour rappeler aux autorités mm. que sport et culture war nañ ci gën a góorgóorlu pour gën a encadrer nos sportifs et nos culturels te incha allah loolu dinañ ci gën a jàpp na téeméeri nit mais tànn bu njëkk la dinañu dajalewaat nit ñi beneen yoon pour defaat beneen tànn ndax tànn bi sax jafe woon mais li ci ëpp solo rek mooy mooy mooy mooy symbole message bi may lancé ndaw yi mooy ñu bañ a fàtte démb ndax oto day am rétroviseur oto ni muy amee accélérateur pour ngay avancer am na rétroviseur pour ngay fàttaliku démb démb dafa am solo ñu koy fàttaliku te tey jii sunu sportif yi ñu dëkk fii Thiès ay exemple lañ man xam naa fi mag ñoo xamante ne bu njëkk ba bu doon sport métier la kon tey ji tabax nañ ay gratte-ciel am na mag ñoo xamante ne fii bu doon football métier la jamono yooyu kon ñoom waxatuñ ko am nañ fi de grands athlètes yo xamante ñu ngi continuer ba léegi di encadrer des athlètes suñu mag ñe tok ñu koy wax osé la même chose nga maintenant, mom def espoir sport dafa dee ci yaramam donc donc loolu yëpp nag jar na ñu wane ko et c'est important donc euh, li ñuy lancer appel aux jeunes mooy continuer leen def sport mais sport jamono la di ngeen xëy bés bëgg ku leen sargal kon fexe leen ba bu leen ko ñaawal ngeen rafetal ko te damay rafetlu aussi comportement wu jeunesse su Diass commune u depuis début nawetaan yi vraiment macha allah ñu comportement yi may écho yi ma ci am neex na ma trop xalé yi comprendre nañ ne ay mbokk lañu avant tout té au-delà du nawetaan am nañ yeneen projet pour la jeunesse de Diass té inshallah allah dinañ ko matal. nawetaan yi li ma wax xalé yi ci début saison bi dama len né xawma kan moy gagner coupe mais équipe bi gëna fair play yi nga xamante ne yéen waa zone bi né ngeen ki moy première équipe fair play fas naa ko yéene jox lo xamante dina tolok la ngeen jox équipe finaliste loolu nag li tax ma ko ma teg ko ci table bi c'est pour rappeler leen l'importance du fair play ndax ñun ay mbokk lañ ku ci am problème ñëpp am problème ku ci am jàmm ñëpp a am jàmm kon loolu moo tax ba loolu c'est important te franchement Diass yàlla may nañu chance commune jees ñun ñëpp ay mbokk lañ et que lépp lu ñuy régler dinañ ko régler ci biir mbokk boobu.